mu nekk benn nattukaay boo xam ne programme des nations unies pour le développement dañ koy utiliser depuis 1990 boo jëlee nattukaay boobu nga xam ni dafay méngale réew yi di leen comparer Sénégal bi Macky Sall di jël nguur bi ñu ngi tolloon ci 154e position ci 192 réew yoo xam ni ñoo bokk ñoo nekk ci àdduna bi bi mu fiy jógee en ñu ngi jógee 154e position jëm ci 169e position ci 192 pays mooy dellu nañ ginnaaw ci wàllum développement humain ñàkk fukki place ak juróom ba tey Sénégal mi ngi bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi nga xam ne ñoo gën a réew ci àdduna ñoo gën a ñoo gën a ñàkk doole ci àdduna bi ci wàllum koom loolu nag lan moo ko indi te e def na investissement yu bëree bëri mooy modèle bi nga xam ni mooy tendre PSE dafa nekkoon modèle boo xam ni du modèle bu baax parce que dafa nekk modèle boo xam ni lebi bitim réew la ñëw dugal ko ci ay projet li ci ëpp nekk ay projet tabax infrastructure yoo xam ne du amul njëriñ mais amul njëriñ ci wàllum koom bi naka lay doxalee mel ni terre lu ci mel ni Dakar Arena lu ci mel ni stade Diamniadio ñu def ci milliards yu bëree bëree bëre yoo xam ni entreprise yi nga xam ni bitim réew la ñu baaxoo laloo fa ñuy ñëw exécuter ko jëlaat koppar bi yóbbu ko seen réew loolu moo tax ñu def alal bu bëree bëree bëri mais Sénégal gisu ci boppam ci wàllum développement donc président Ousmane Sonko président du parti ak président Bassirou Diomaye Faye bi ñu gisee loolu depuis ñu créé parti bi 2014 gis ni modèle bi baaxul. ci la ñu waxtaan ak sénégalais yóbbu leen ci beneen modèle boo xam ni moo mën a indi nattange model boobu mooy modèle bu ñu woowee modèle d'industrialisation par substitution aux importations ak industrialisation par promotion des exportations mooy lépp loo xam ne ñi ngi koy jéggaane bitim réew te Sénégal am possibilité développer ko fii am possibilité bay ko wala sàmm ko yu demee noonu dañuy liggéey koom-koom bi ba nga xam ne danañu mën a li nga xam ne ñi ngi koy jëlee bitim réew léegi ñu koy defal suñu bopp moo tax référentiel bi tegu am ñeenti ponk ponk bi ci njëkk di bonne gouvernance ak engagement africain bonne gouvernance nag mooy yorin bu sell buñ ko mënee misaal mooy jub jubal jubbanti maanaam tey mënuloo yor koom naan da nga koy suuxat di ko développé bu dee bonne gouvernance teewul ndax alal bi kon duñ ko yor ci yorin bi nga xam ne mooy bi gën a sell beneen bi ci tegu nekk aménagement du territoire ak développement durable parce que koom bi nga xam ni dañ koy liggéey contrairement ak xam ne dañ ñu du nekk ndakaaru kese waaye day nekk ndakaaru ak biir réew mi parce que boo xoolee sax biir réew mi richesse su dëkk bi yëpp li ci ëpp mi ngi biir réew mi boo jëlee jën mi ngi biir réew mi boo jëlee or boo jëlee fer boo jëlee zircon amul ressource naturelle booy tudd te nekkul biir réew mi ñu ne dañuy aménager territoire ba nga xam ni li ñuy liggéey ci koom dana mën a yomb ci biir réew mi nga xam ñëpp dinañ ci gis seen bopp beneen bi ci tegu di capital humain capital humain mooy doomu aadama bi nga xam ni moom moo war a exécuter projet de développement boobu naka lañ koy dooleelee ci wàllum njàng naka lañ koy dooleelee ci wàllum formation professionnelle naka lañ koy doolee ci wàllum wér-gu-yaram ba nga xam ni dana am kàttan ak xel boo xam ni koom bi ñu soxla dana ko mën a doxal moo tax ponk bu mujj bi nekk économie compétitive ndax lii yëpp boo ko amee mu nekk préalable di nga mën a dem ci comme boo xam ne dina mën a compétir bitim réew loolu moo tax ñeent axe yooyu tegu waaye ñeenti axe yi dañ ko lal tam ci yeneen ñeenti moteur ndax réew boo mënti jël rek am na foo xam ni foofu ngay sikkandiku ngir avancé boo jëlee réew mu mel ni Maroc tey ci seen phosphate la ñu basé wu ba nga xam ni lii gën ci phosphate bi ci wàllum koom dafay dimbali yeneen secteur d' activité économique boo jëlee réew mu mel ni Éthiopie ñëpp xam nañ tey seen industrie aviation ak li li ko wër yëpp ci loolu la ñu basé wu ba nga xam ni seen koom jëm na kanam ñun Sénégal ñu identifié si ñeent man tënk leen rek doo ko jox suma doomu ndey Basirou kebe ñeent yooyu bokk na ci li ñuy woowee les industries extractives mooy Sénégal tey am na pétrole Sénégal tey am na gaz Sénégal tey am na mine naka la ñuy def ba ci produit yooyu développer li ñuy woowee chaine de valeur chaîne de valeur mooy boo jëlee agro alimentaire wàllum gerte bi par exemple diggante bi ñu koy bay biñ koy transformer biñ koy emballer transport bi ba bañ koy jaay bitim réew naka la ñuy def ba pàcc bu ci nekk ñu développé ko ak acteurs yi nga xam ne ñoo ko sekk ba nga xam ne li ñuy woowee ci tubaab valeur ajoutée dina nekk loo xam ne dinañ ko gën a yaatal te dina des ci bitim réew dina des ci biir réew mi pardon donc moteur yooyu di ñeent industrie euh, manufacturière industrie extractive industrie agroalimentaire ak li ñuy woowee les service à haute valeur ajoutée lu ci mel ni industrie culturelle culturelle et créative sport ba culture yeeg yu demee ñeenti moteur yooyu ñu leen développé ci huit pôles économiques foofu laay daanelee huit pôles économiques yi ndakaaru bii ñu nekk ci la bokk Thiès ci la bokk centre bi ci la bokk sud ci la bokk sud-est ci la bokk ba mu mat juróom-ñett ci biir juróom-ñett yooyu li ñuy def mooy xool lan mooy meññeenteef boo xam ne dina jóge ci gox-goxaat yooyu pôle économique yooyu ngir mën a développer chaîne de valeur ànd ak secteur privé. état mën a indi financement bi nga xam ni mooy accompagner ce travail du secteur privé ngir mën a développer économie boo xam ni économie endogène lay doon économie industrielle ba nga xam ni danañu mën a changer modèle bi nga xam ni moo fi amoon depuis 1960 dem ci modèle endogène boo xam ni mooy mën a yóbbu Sénégal ci kanam ngir horizon 2050 Sénégal bokk ci téeméeru réew yi nga xam ni mooy réew yi ëpp doole ci àdduna bi bàyyi sama doomu nday Bassirou Kébé Mortali jërëjëf. merci merci beaucoup monsieur Diop. c'est intervention de très facture li nga wax ñaar moom la si gën a neex ak économie ànd jeune macha allah économie ànd ci tënk rek mooy économie boo xam ne si lépp lu ñu koy li ñuy def dañ koy def suñu biir mu jariñu ñun suñu biir dootuñu am li ñu naan économie extravertie di produire de la valeur ajoutée ba pare di ko exporter mais lépp lu ñu produire daf ñuy jariñ chaîne de valeur maanaam ci fa muy commencé ca. primaire ba ba ci tertiaire ba lépp ñu defar ko fii ay doomu Sénégal defar ko mu nekk Sénégal waa Sénégal di si gis seen bët macha allah moo ko lekk le bon cap est fier de toi donc bu jugee ci yow on va introduire monsieur Bassirou directeur général de la SNHLM ñu may ko loxo ñu may ko loxo. asalaamaaleykum sama mbokku patriotes maa ngi leen di ñëpp maa ngi jiital nuyu bi monsieur le ministre conseiller monsieur le ministre secrétaire d'État messieurs mesdames les directeurs généraux les directeurs nationaux les honorables sortants et les honorables entrants incha allah le 17 novembre di nuyu tamit suñu alliés ma ràññee si le président Mamadou Lamine Diallo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu les coordonnateurs communaux ici présents di leen féliciter bu baax a baax ci seen taxawaay au sein de Pastef Dakar waaw daanaka euh, Cheikh Fatma wax na lépp li may njëkk wax mooy fierté bi ñu am ñun en tant que jeune président Ousmane Sonko tànn ñu bi ñuy bind programme bi am confiance ci ñun te projet bi lépp lu ci nekk saa ñu ibbee livre bi di ko liir dañuy gis lu ñu si liggéey mais fierté boobu amul programme bi ay sénégalais ñoo ko bind pour ay sénégalais te loolu dafa am solo ñun bokkuñu ñun bokkuñu ak complexe bi nga xam ne bi ñu ko falee dafa toog deux ans ay tubaab defal ko benn PowerPoint mu fay leen deux milliards cinq mu ñëw kontaan di reetaan di dem ay Alstom ñu koy jaay ay terre muy sol ay casquette di visiter di kontaan di sourire rek gis ngeen fu mu mujjee dix ans après échec total. léegi mi ngi ci mu ngi ci whatsapp bi nañ ko fa bàyyi li am solo mooy que lii ay sénégalais ñoo ko def ku mel ne Cheikh Fatma ku mel ne man ku mel ne euh, ñoom Justin Correa ñoo toog liggéey ko ak yéen ñi ñëpp donc projet bi sénégalais yi approprié nañ ko ba pare parce que ay sénégalais ñoo ko def li am solo fi Cheikh Fatma terminé mooy ci huit pole territoriaux yi. lu tax mu am solo loolu yaakaar naa président Mamadou Lamine Diallo moom mi nga xam ne économiste la moom ko gën a xam ñun dañu am problème ni ñu tëggee suñu réew te loolu ci tubaab yi la jógee bi ñuy tëgg suñu économie tubaab yi ñoom li leen soxaloon mooy jël suñu ay matière premières lu ci mel ni gerte génne ko dakaar moo tax ñu tabax raay bi génne ko Bawol jëlee ko Saalum mu ñëw dakaar ñu tabax port pour génne ko defuñu ko woon pour développement Sénégal dañ ko defoon pour seen intérêt pour Sénégal mun du am capacité. industrie du am capacité transformer ay produits am mais mu nekk économie boo xam ne rek lépp dañ koy génne te 1960 ba léegi bi ñu ñëwee même si président Mamadou Dia bëggoon nañu génne ci loolu malheureusement fekk xam nañ li ko ci dal moom la président yi fi nekk yëpp model boobu lañ lañ continuer rupture bi ak lu mel ne ay PSE mooy loolu ñun dañu bëgg changer complètement loolu comme que ñun fii si dakaar lañ nekk dañ leen di wax li ñu bëgg def ci dakaar tey jii Dakar représente 0,3 pour cent du territoire waaye ci suñu koom-koom dakaar mooy produit daanaka genn wàllu suñu koom-koom presque pour cent ñun dañ ko bëgg a wàññi ba vingt neuf pour cent dégg naa nag ku bokk ci boor bee keroog maa ngi seetaan TikTok bi ku amul xam-xam nee na xoolal ñii dañu bëgg wàññi doole dakaar il n'a rien compris à l'économie mais ñoom ñàkk ñàkk xam-xam dañ leen dañ leen dañ leen ràññee si loolu lu tax ñu bëgg a def loolu da ngay xool benn zone bu mel ne tiers est bi maanaam nga jóge maatam wàcc. Euh, euh, Tambacounda ba Kédougou il représente 45 pour cent du territoire waaye ngi contribuer juste de 9,5 pour cent si suñu PIB loolu moo normalul su dee tey Dakar dafa fees Dakar bëri ay embouteillage Dakar bëri ay marchand ambulant dakaar xat koñ yi xat ñu mel nañu dëkk si ay poulailler loolu moo tax loolu du ay autopont du ay TER du ay BRT moo koy réglé suñ defaroon ay métro sax problème boobu day continuer di am on a besoin de désengorger loolu nu ñu koy defee mooy dañuy jël pôle yi bu ci nekk lan mooy force am yan ressource la am ñu industrialiser foofu Dakar tey jii lan moo war a nekk avantage am su ñu bëggee désengorger Dakar Dakar dafa war a nekk pôle boo xam ne si valeur ajouté lay liggéey lan mooy valeur ajoutée mooy service service de télécommunication yi paiement yi banque yi et cetera ak ak tourisme bi tourisme culturel bi surtout dakaar loolu la war a nekk Dakar dafa war a nekk pôle bu mel noonu nga xam ne fii la ñuy fii la fii la fii la valeur ajoutée boobu di am nga dem fu mel ne Thiès côté Petite cote bi Mbour am nañ géej am nañ euh, ay station balnéaire nga jël produit halieutique yi nga ne foofu nga koy transformé ci vas mettre des usines boo waa Mbour des mbuur waa Thiès des des Thiès di fa tedd di fa mun teddal seen ay njaboot loolu mooy vision te loolu moom musa manqué Sénégal nga dem ci zone u Tambacounda bi zone u Kédougou bi nga xam ne am nañ am nañ fa or am nañ fa ay ay ay minéraux yu bëri yoo xam ne ba président Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko di ñëw pouvoir sénégalais musul teg benn lengoo door foofu musuñu fa teg bët gendarmerie police sax dañ doon ragal di dem foofu loolu aussi mooy souveraineté te léegi am nañ ko zone boobu ñoo gën a pauvre si Sénégal te ñoom ñoo ëpp xaalis si Sénégal ñoo ëpp ressource si Sénégal est-ce que loolu lu normal la ce n'est pas normal loolu dañ ko war a dindi sénégalais yëpp a yem si Sénégal te ku nekk daf si war a gis boppam donc équité territorial boobu incha allah ñun dañ koy def te bés bu ñu ko defee di ngeen gis ne dakaar ñi fi dëkk yaroo dakaar màggee dakaar seen vie dina gën a yomb soo leen daan dem hôpital. di yóbbu seen ay njaboot di rang di toog ay heure amoo leen médecin yu doy bés bu ñu defee loolu ba ku nekk toog dëkkam am fa sutura bés boo leen dematee hôpital seen rang du yàgg on va vous prendre en service classe école yi classe yi dootul xatati école yëpp day am place pour suñu xale yi ñu nekk si public wala ñu nekk si privé ñu mun jàng dans des bonnes conditions loolu moo am solo loolu mooy bëgg Sénégal loolu mooy vision soo leen bëggee nag foofu laay jeexalee loolu nag pour mu am yore pouvoir exécutif rek doyul pouvoir législatif bi lu am solo la soo leen bëggee loolu am dafa am ay loi yu ñu war a voter dafa am ay lois yu ñu war a modifier donc foog ngeen am ay député yu am niveau est-ce que bëgg ngeen loolu am est-ce que bëgg ngeen loolu am soo leen bëggee loolu am da ngeen di voter ay député yu mel ne Marie-Hélène ay député yu mel ne Ndaak ay député yu mel ne Ababacar Tambédou ay député yu mel ne Abass Fall ay député yu mel ne Ousmane Fall ay député yu mel ne Soxna Daari ak ay député yu mel ne Abdourahmane Diouf loolu mooy dëgg à pour la victoire 17 novembre incha allah merci beaucoup. merci beaucoup monsieur Bassirou Kébé.